yow war nga maa laaj man loolu nga maa laaj man c'est en question là. <laughs> fonder une vie de famille marier wu avoir des enfants am na importance pour moi parce que nit ku nekk jigéen bu nekk loolu ngay ñaan da nga yaan nga yàlla am jëkkër am ay doom gérer sa kër. so yeah am na am na importance bu mag par rapport même bu fekkee ne tamit da ngay carrière man je pense pas, loolu yàkkal na tamit ci carrière parce que gis nañ fi ay femmes yi nga xamante ne am nañ elles ont des enfants mais en même temps elles continuent sa carrière gis nañ des fils de équipe nationale des femmes comme Koumba elle est mariée elle a des enfants Bintou elle a elle a elle a un enfant tu vois mais ba tey continuent de continuer de jouer sa carrière il leen dara quelque chose bi nga xamante ne man j'y pense moi franchement parce que mariage n'est ne lu nga xamante ne dañ koy c'est pas parce que tout le monde se marie que forcément man je dois me marier tu vois mën nga am âge bi et tout mais on on on nit ki da ngay ñaan yàlla retrouver la bonne personne mi nga xamante ne bés boo ci duggee yàlla dina leen boole à vie mais xam nga tamit pour parax fa dugg si ma ay génn dugg mariage ci génn nit kenn ñaanu ko moo tax xam nga rek il faut que tamit nga jël sa temps xool bu baax si li ngay dugg loolu la rek mais ça veut pas que Yacine peut pas se marier nii xëy ngay xool bu baax si li ngay dugg ñaan yàlla boo duggee mu nekk à vie. ñaanuma yàlla di xaar ba pare carrière di marié wu moom franchement parce que ñaan naa yàlla def carrière bu gudd ci basket bi sew maa ngi def sama carrière mais ñaan naa yàlla am si jëkkër am si fondé sama faay comme li ma la wax sànq comme suñu aîné yi nga xamante ne ñoom am nañ jëkkër am nañ doom mais jàqalu leen dara si seen basket so ñaan naa yàlla bala may pare sama carrière bu naa naa la samay doom sax di ma seetaan may basket loolu laay ñaan incha allah